lu nit am ñaare ko ko gënal leneen lu ci topp bonus mooy wér ak jàmm hmm. lu nit am rek boo amee jàmm am nga lu am nga lépp boo amee wér am nga lépp waaw ñi ñu ne kaay leen ñu waxtaan te dañu xool dialogue bi bi mu ko bi ko président waxee le 15 février li mu leen njëkk wax dafa leen leen ne yéen les candidats les 19 candidats kaay leen ñu daje à 11h ñu jàpp date comme li président de la république wax. loolu fan la ko waxee ci communiqué. non le 15 euh, le 15. Euh, muy wax jaloo waxul woon kan kan lay. dialogue bi mu ñëwee non dafa ñëw teg benn calendrier. ne day recevoir le 15 les candidats. waaw loolu ci communiqué la. wa moom laa la wax. waaw loolu moom communiqué moo génn ab communiqué moo génn dañuy recevoir les candidats euh, ak les recalés communiqué la. muy ci coobare président de la république parce que conseil constitutionnel moo ko wax ne ko tànnal date comme ni mu ko waxee rek su ko neexoon. toog jël date waaye du cër mu jël cër bi delloo waat ko ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ko séq muy les acteurs politiques gis nga Birama boo bëggee dégg-dégg ñii li tax ñu dem li tax demuñu demuñu parce que bëgguñu dem mais ñoom kenn du ci jàkkaarloo président de la république 99 pour cent bu ñu jàkkaarloo ko ak président de la république dañuy sëgg. dañuy sëgg. parce que fu ci nag am na fu président jaar ak yow coow li coow li yëpp. jaar non non non li ma lay wax ni lu ma xam la. te démb démb ñun ci lu euh, factuel la ñuy wax. jaar très bien moom moo tax ma ne la ñi ëpp ñi tax ne demuñu jalo demuñu parce que dañu bañ a dem jalo gi waaye jàpp nañ ne ñoom du ñu du ñu mës a jàkkaarlu président. de la ñaari dialogue gi dafay yàgg fàtte xaju fi. noonu non waxuma la ñaari jalo parce que xam naa li ma la wax bu baax am na loo xam ne bu pour ñu wax ko dañ naan rek nañu am fu ñu yem. mais ñu ci bari non ci nekk non. looloo tax ma ne la ñu ci bari fu yem du ñu yem ci télé non dama ci ñi ci bari. non xam nga ci lan la ñuy waxtaan ci lu concret. moom moo tax ma ne la li ay ku ci sëgg ak moom jàkkaarlu moom da ngay sëgg mu keneen mun na le bu jàkkaarloog man day sëg yooyu ay détails la. quoi non moom laa la wax ne la li tax li tax ñu ne ñëwuñu jalo ñi ëpp ci ne ñëwuñu jalo du ñu mës a jàkkaarloog président de la République kaay ñu toog yéen vous êtes des candidats kaay leen ñu toog ensemble ñu jàpp jàppandoo benn date waaye bu amee coow nag wax dëgg yàlla nag ñi ñëwul ñoom ñoo bëgg coow kaay leen ñu jàpp date demal nga toog nekk un un une personnalité nekk un responsable.